ex nañu ak yéen ci suñu journal fait divers mu di xalaas ci rajo Futur Média ni ñu ko baaxoo di ànd ak yéen semaine bi yëpp lundi ba vendredi tey di bés bi mujj ci semaine bi ci xalaas ñoo ngi ci fan yu mujj ci at mi ci xalaas ay duñu bàyyi noonu rek la ñuy àndee ak yéen ngir di leen dégtal euh, fait divers yi nga xamante ne ji moo leen di jariñ di leen yee di gërëm bu baax partenaires yi ñuy faral di àndal ci xalaas ñu diñu ci gunge maa ngi lay nuyu Mamadou Ndoye Bane maa ngi lay bëggee sama waa ji di la di la ziar bu baax a baax di ziar Passepartout euh, ak ki nga xam ne moom moo di l'homme avant xaw fu mu ne. ma ca bagage xam nga ma nga ca bagage GFM chez vous daa am Sali. Mm-hmm. Sali waaw daa am Sali ci weekend bi. Ah. GFM chez vous ca Sali. ay ah. allo présidence en direct lay doon. ay ah. Dakar na door pas en direct. su ma juumul sax am na benn artiste bu fu war a def concert euh, soirée. waaw dama dama dama jàppul tur bi mais su ma juumul. tey waaw xëy na daaw da na ma ko xam yaakaar naa daal. yëpp ci programme GFM chez vous ca Saly ci la bokk. ah kon xalaas lu dox également ak agence promotion touristique yooyu daal jàpp naa ko ci. Mm-hmm. Ah, kon xalaas bokk bokk ci quoi. mais xalaas moom c'est national xalaas. ñu ko déplacé ah. Saly boo ko déplacé Saly. <laughs> foofa lu ma waa Kédougou ñoo lay woo léegi. <laughs> passe partout maa ngi lay nuyu. maa ngi lay delloo ziar Ndiaye Lomfor. maa ngi lay bëggee maa ngi sant bu Ban maa ngi lay nuyu. waa ñu bu baax a baax sama waaja sama waaja si Mbour ab baax. <laughs> maa koy siyaar di ko nuyul madame Ba comme tey newu fi. <laughs> Ndiaye. Ndiaye eh, yow am na benn avocat bu jigéen ndeysaan bu fàtte ci ay taxe ay verre seer. avocat ah waaw. ku jigéen la de wax dëgg yàlla verre ya daal xam naa ni moom su verre feeñul dina gëj a palais de moom. avocat yam nañu xaalis. ah mais <laughs> waaw waaye na mais na yii feeñ rek ba pare rek. nañ ko am na benn avocat mu def jëf ju ñaaw joo xam ne. déet waay. dama xam ne toog fi jox suñu problème taxuñu. waaw jéggal ko rek man kay xam nga ne ba ma ko defee. yàgg yaa mu ne woon jéggalal kay. moo tax ba ko defee yàgg na yaa ngi ko rek. Euh, mu ne lu ne di fu mu ko fàtte ci taxi. ci taxi la ko fàtte wax na la trajectoire wax na trajet bi dans un taxi bu mu jël fële ci avenue Malick si xam naa jëm euh, ak ak diggante avenue Malick si ak rue Carnot. Mhm. Euh, waaw côté yooyu daal la ko fàtte ci biir taxi bi. taxi man bu ci gis ay verre yooyu ay daal yoo xam ne ci foofu la mën nga ko indi fii ñu xool. jokkoo xam waaw verre yi avocat yi ëpp naa. Euh, ëpp naa naa sànq waaw ëpp naa sànq. ay article ki code pénal de lañ lay indi. <laughs> waaw ak <laughs> ak borom or ba borom or ba it feeñul ba léegi. nga xam ne ki ko fàtte waaw madame waaw madame Barji. Mhm. waaw ñuy ñaan rek euh, ku su ko waa ji mu indi ko mi ngi ko def ci benn sacoche bu manoo sax montre bi rafet na de. ah jërëjëf waay. waaw ah, am tey da ngaa tuul. ci. <laughs> jéggi naa la Ndiaye. <laughs> waaw. waajaak télé ba. ka nekk ca kaso ba. waaw te ñu yóbbante woon ko tele télé mu war a jugee waaw ñu def ci télé euh, télé bi dorog. waaw ba téye ko ca kaso ba. waaw ba mu fay lu jege ay treize xaw ma dix-huit millions. waaw hmm. ba noppi ñu tëj ko fa. ñu tëj ko fa waaw. waaw passe partout ka ko joxoon télé ba. waaw ki ko joxoon télé bi moom mooy Maroc mu ngi nekk Maroc instant bii xaritam na na benn bakkan. ci li mu expliqué. moom moo jox ko ñun démb moo tamit di leeral fan la mbirum télé bi jógee. moom waaj a ne Maroc. leeral nañu fan la mbirum télé bi jógee ba ñëw ci moom ba mu jox ko waaj yi pour mu indil ko ba xam fii Sénégal. histoire boobu fi amoon bi fi jaar ci suba man mii la man mii la concerné man maay concernant bi léegi ma bëggoon cee indi tuuti leeral ay leeral ndax moom moomu noonu xam na ma bu baax a baax ñoo bokk bokk nañ mën naa ne trois ans yoo xam ñoo koy bokk benn lal bu ñuy tëdd ñooy bokk benn lal bu ñuy tëdd muy dem Sénégal di ñëw bu ñëwee ñooy nekkaat place laa yor di liggéey watkat laa salon bu mag dafa am sama benn xarit bu ma jox benn télé parce que naa ne xarit bu ma ak moom benn xarit laa fi amoon mooy moom moomu benn xarit laa fi amoon xam na ma bu baax xam na li ma capable xam na li ma capable xam na li ma ñemee def ak li ma ñemewul def yaakaar naa ku dul tux cigarette

semaines yoo xam te ne man du ma nekk du ma fanaan ci kër ga su ma liggéey bu ma wàccee dama fay jaar sangu sol yére génn dem naa sama kër xarit yi foofu laay nekk moom mu ne ma dem Sénégal ma ne ko ah kii day

faale faale wu ma klaxonné ma rek continuer dem ah muy dem daal takk télé bi takk ko daal ko yóbbaale bi ñu demee ba Mauritanie moom ñu ko fa man daal ay 18 heures xaritam la Babacar sama xarit ndax woo ma ni ma Adama mu ne ko am mu ma kaay ma ñëw mu ma yënga ne diw dafa am problème ban problème la am mu ma ah da ko joxoon ay bagage ma ne ko waaw jox naa ko benn télé mu ma télé boobu nga ko jox dañ koo jàpp ndax dañ cee a dama ko joxoon dafa bi ma téye ma mu demee ba ñu jàpp ko fa ñu ne dorog la fa nekk te télé man mu ne ko ah moom ma ko jox consul bi diw ma ne ko numéro téléphone ngi nii diw moo ma ko jox automatiquement man ñu woo ñuy woowaaji mënuñu koo jot bu góor bi nga xam te ne moo indi woon xale bi kër ga conseil bi ko bi mu ko woowee mu expliqué ko gaan bi bi woo ma ne ah, bi ma kon kii bi bi ma bi ma ko jox moom mu ne waa bi benn malien moom moo ko joxoon pour mbëkkal jël ko ko aéroport muy dem Mali moom muy tourné jël télé bi jaay ma ko moom ci boppam mu ne waa ji moom waa ji ci boppam mu ne télé bi benn malien mu moo ko jox pour mu mbëkkal ko ko fay ko 1000 dirham pour mu mbëkkal ko ko joxal yóbbul ko télé bi Mali waa jël télé bi jaayaat ma télé bi joxaat ma télé bi noonu la demee ma ne ah man bu ngeen ma dem bi ma àggee da amoon problème ci benn télé ma leen waaw dama amoon problème ci benn télé ñu laaj ma histoire bi ni mu demee ma expliqué ne histoire bi ne leen nii ak nii nii la demee ñu téema fa falaa fanaan jour boobu noonu jàllale ma yóbbu ma police bi nekk insiba ñoom ñu def enquête woo consulat bi fii waxtaan ak consulat bi expliqué xaw def waa ji nga xam te ne moo def histoire bi nag boobu léegi ñu ngi koy topp yow tamit boobu léegi bi problème bi amee boobu léegi chaque jour ñu ngi topp say dugg ak say génn man loolu jour boobu laa ko xam kii la léegi nag nañ la bàyyi nga dem sa kër mais nag heure bu ñu xanaa koo bokkal tëdd koo bokkal nekk ak moom tëdd ak moom ñeenti at ngeen tëdd ko ba jàpp juróomi at kooku bu fekkoon nit ku bon la wala nit kuy def lu bon la wala nit koo xam te kuy def lu naka su dul la wala may jaay loo xamante ne lu ñuy tere la kon heure bi war na ma fekk ma dépassé fii ba léegi nii dugg Sénégal sax mënaguma koo def parce que di bëgg loo xamante ne lu may tere la samay waajur wala bëgg loo xam lu may yóbbul samay xamante ni ci man amul yàlla mi tim xam na ne télé boobu noonu billaahi wallaahi ku dee ak sa bàmmeel ku dee tey jii ak sa bàmmeel billaahi wallaahi amul dara lu bon loo xam xamante ni lu ma ko yéene la wala lu bon loo xamante ni lu ma yëkkati la pour jëmale ko ci moom xëy na nag ndogal moo ñëw télé bi jaar na ci loxo jaar ci loxoom ñu téye ko ci mën na jàpp ni man la mënuma cee justifié wu dara loolu nag man de ci man fii waaw hmm. leer na te àgguñu ci kanamu kanamu yàlla leer na waaw man de ak nii mu ko waxee nii. waaw nga xam ne nëbbatuwul tam ñoon ko cee fekk. Uh-huh. même bu dee moo joxe télé bi xamuloon nekk ci télé bi. Uh-huh. même bu dee moo joxe tele bi. Uh-huh. xamuloon li nekk ci télé bi. léegi nag gars yi dañuy teg din dañuy huit cent dirham yooyu mu koy mu ko mu ko mu ko mu ko am abbu. bu tele bi duggoon Sénégal dana ko fay. Mhm. bu télé bi xasoon bu dugg Sénégal. Mhm. dana ko fay. mais pap ca papay waaju la ko yónnee. déedéet da koy woo ana télé ba mu ne ko yónnee naa ko mu ne ko noonoo borom daf maa indi mhm. ko wax keneen ku ko ko sa 800 dirham ngi nii dinaa yónni sama benn frère mu dem jëli ko borom. xam bu ñëwoon ne ko bi wala mu tay la ko télé bi wala genre mel noonu télé bi mën na bañ a génn Maroc ñëw Sénégal. mais noonu la ko mën a def. waa ji bu génne woon télé bi. télé bi dina demaat ci borom. mais kii ma dégg muy wax nii. gëw ma ne moo piégé ki ki nekk kaso. waaw en tout cas ki nekk kaso moom man man man man man yërëm naa ko man. ah mais bon. yërëm naa ko mais mais xam nga xam nga li problème bi Ndiaye. Mm-hmm. d' mën na ko bañ a piégé. loolu ñëpp d' accord nag mais le problème mooy moom il faut mu xam ne ki doon wax démb waxul pour ne moom mm, mooy xaritam la moom ci li mu wax kee tamit nee na xarit la ko jàppee woon mais le problème mooy ñoom moom mii wanewul loolu de. déedéet moom wane ko ay mbokkam wane wuñ ko. parce que par am ba léegi moom mi ngi doog ay mbokkam ñoo ko dégg woo ko pour mu réagir. waaw mais déedéet mais passe partout déggoo la wax. nee na mhm. ba ma ko yëgee ñu woo ko ne ko diw am na problème. ci la bàyyi lim doon def dem seeti ko. Mhm. moom téye nañ ko police fanaanal ko fa. woolu nañ ko te ni muy waxee nii contrôle judiciaire la nekk déggoo mu ne la bëgg naa ñëw Sénégal. mais toog fii Maroc ndax mënatumaa génn. Mhm. contrôle judiciaire la nekk. non non moom kenn topp ko ci dara. c'est-à-dire moom moom bi muy wax ah. bi muy wax mënutul ñëw. bi wax mënutul ñëw. mooy amul xaalis koom-koom koom-koom. Ah, loolu ko mais moom dafa woo maanaam waa ji xam ne xaritam ñu jàpp ko Mauritanie. Mhm. ko cinq ans. Mhm. le minimum mooy même su fekkente ni moom defu ko tegu ko dil defu ko dara mais na ko nemmeeku ay mbokkam nañ koy nemmeeku ay mbokk waa nañ koy nemmeeku. parce que parce que parce que defu ko ko. mais problème bi waa ji am ci moom la jógee. passe partout. Mhm. mbokki gars yi moom mënuñu leen a jam ci dara waa ji ay mbokkam. Mhm. mënuñu leen a jam ci dara. parce que mbokk yi joxuñu ko tele bi. Mhm. santu ñu ko mu yóbbu ko moom mii moo ko sant mu yóbbu ko. moom it ci ni mu waxee nii. ah il est de bonne foi sama xalaat. d'accord que problème bi mooy ki nekk ci kaso ba. peut-être sentirul. maanaam sentir maanaam xam nga mbir mi euh, ndogalu yàlla bu ñëw la mais il faut mu sentir que ni kii nii ak ay mbokkam ñi ngi ñi solidarité ak moom à quelle fin ban njariñ lay am. non njariñ xam nga tey jii. yëg bi rek yëg-yëg bi xam nga tey jii kii di wax nii. su grand frère am demoon ba Mauritanie sax seeti ki nekk kaso ne ko sa waaye ma yabal. xam nga ñi ngi ànd ak yow naqar wi patati ndogalu yàlla loolu dina am lu mu teggi ci waajee ne kaso. non wala mu woo ko téléphone. ñoom ñëpp ndogal moo ñëw ay xarit lañu ndogal ñëw. xoolal wala mu woo ko téléphone. parce que parce que ci ki ki ki ne ci kaso bi tey soo maa ngi koy dégg. waaw ah. nee na ma xarit xaritam bi muy wax nii. Mhm. chaque jour ñu ngi déggante maanaam keneen bi seen benn xarit bi seen wax ci audio bi waaw chaque jour ñu ngi déggante ñoom ñaar mais kii musu ko woo kii musu ko woo ki ko joxoon télé bi musu ko woo musu ko woo te mi ngi déggante ak ñeneen mi ngi déggante bu bëggee ni moom da koy am ah, en tout cas daal li ma mën a xam daal mooy doy na waar mais nañuy moytu rek ah nañuy nañuy moytu c'est que ay affaire xarit ci boppam la ñu war a ah Youssou wax na ko <laughs> déglu leen wayu xarit bi xarit ci boppam njaay xarit ay affaire sama xarit laa ak ñoo bokk néeg Amérique ak ñoo bokk néeg mara yooyu taxawul mooy xoolal njaay dëkk bi dafa kii de. mais ba ba fa muy mën di yem de gëw ma ne kii bi mu ko jox tele bi xam na li ci nekk. d'accord mën naa bañ a xam li kon li ci nekk ndogal ñëw na. Hmm. mais su ma ànd nit ba ndogal ñëw ma teg ko ko te teyuma ko dinaa partager ak yow naqar bi. waaw waaw benn. ñaareel ba mooy moom xam na ki ko jox télé bi. waaw kooku la waroon dem yóbbu police. voilà kooku su seeyee na. non koy wax porté na plainte porté na. en tout cas télé bi du mu sam borom. télé bi du mu sam borom. parce que kooku benn malien moo ko jox. ah mooy ki duggoon ci kaar bi tafu rek ba tafu kalpe paa bi. police ñëw di di di di di di di di di di visite ñu jàpp ko ni ko kalpe bi mun ko ci kii laa ko sàcce mun ko man mi sàcce woo ko ci man. loolu nekkoon ci kalpe bi di drogue ci ne. sàcc bee sàcc kalpe waa ji ubbi ubbi jotu koo ubbi police dugg si di di di visite gars yi. contrôle contrôle contrôler sàcc bi jàpp kalpe bi ubbi ko ni ko yow dañ la yóbbu mën ko kalpe bi ci kii laa ko sàcce léegi. waaj ni ko man moom ma ba dëdd ci naaj bi ah, waaw bañ ba dëdd naaj bi mel noonu mais daal mbir naal moom su amee soo leen bokkee ndogal su amee hmm. na xam nga am na yoo xam ne daal massa dina am lu mu wàññi hmm. fajul affaire yi mais dina am lu mu wàññi su fekkee mënta dem waa jii di wax ni suy dem Mauritanie ñu koy jàpp amee ah, ban il faut que sénégalais xam benn bon doomu aadama sax hmm. mooy gis nga damay dégg ñu naan baatu kaso jombul kenn ah kay ku yàlla na mut protéger kaso jomb na la ko xamante ne yàlla namul ci yow protection mhm. yàlla mooy protéger ñëpp mhm. mais di nga am problème ñu dugal la ci kaso bi mhm. metti la lool day ku la wax boo génnoon doo bokk ci ñi camion bi mbëkk bër eh, démb mais ñaawoon du ma man man ma accident boobu métti na ma de jaay mais métti na ma maa ngi fee yaa ngi fii yaa dugg ci accident métti na ma trop trop sax ñu doxal beneen jaay waaw Sénégal nañ yar nit ñi baan ñu doxal beneen jaay nañ yar nit ñi baan ñu dem gis nga bër gi dem ni doon dàqee policiers yi ni doon dàq jee policiers yi lu ma metti la. mbuur ah, te tey ji dàquñu policiers policiers yi doon daw fitna. voilà tey ji na imaginer tey ji su policiers yi def tourné woon jàkkaarloog ñoom. waaw ndogal am ca. ñu toppati policiers yi policiers yi. Mm. policiers yi policiers yi et puis dañuy def li ñuy def ba pare dañuy def li ñu def policiers yi ba pare di jubilé. am ñu ci ànd ak ñoom kontaan ci. loolu du ndam dàq ay policiers ki gendarme du ndam de. xam nga xam nga lan moo ma ci neex te malheureusement gaañu waxuñu ko. waaw mooy ñoom bi ñu defee loolu ba pare. waaw démb réccu nañu ko. waaw gis liir naa ko. baalu àq. waaw. autant ni ñu médiatiser woon bi ñuy bi ñuy bi ñuy bi ñuy sonal policiers yi. waaw policiers yi di reculer. waaw ni ko siiwalee woon. waroon nañu siiwal également ñoom ñu dem ba rendre seen compte ci seen erreur. dina tax keneen du ko def. Ah, gis nga baan gàtt xel ak ñeme fitna weesuwul. di sóor ab alkaati. ah noonu de. fañ lay dugal. ah di la fa def la ci dafay def. lu loolu. koo xam ni bi ngay tëdd di nelaw. mu ngi dox ci tali bi. Hmm. ña nga frontière ya ña nga fu amoo dara lu dul tax lu dul bu bu bu jubuloo dara lu dul torxal li nga yaakaar ni loolu loolu loolu loolu ndam la. Ah, mais lu ci bëri nag ñàkk xam a koy waral. mais mais mais kii ban. mën naa Ndiaye mën naa wax cinq secondes benn affaire bu ma métti. waaw mooy. ci par rapport bii nii. waaw mais Sénégal pourquoi bu mbir amee. au lieu ñu. jéem a wootee sapeur wala ñu jéem a sauvé ñi nga xam ne ñoom ñoo soñ ñu tax di leen filmer uniquement pour man maa man maa am exclusivité man maa ko filmer maa ko maa ko partagé di ko partagé ci ci groupe whatsapp bi njaay accident day am lu metti de nit ki di pat pati waa am na benn agent sagam bu ci faatu waa jaa ngi naan suñ ko sauvé woon du dee mais nit ñi dañ koo tiim di ko filmer ñu ko ci réewum Sénégal mi njaay dëkk bi nan dem rek dem rek songi policier songi gendarme su nit nekkee ci ay accident amee ñuy sàcc ña dee yu mel nii rek fii am nit ñi di ko ni ko dem rek jaay mais bu ñu jeunesse bii bu ñu bu ñu kii nan dem rek nañu moytu loolu ah, bu ñu bu ñu dëgërante bopp ak alkaati yi ah, nan dem rek buñ ko def santaane wuñ ko digle wuñu ko te jaaduwul te kenn àndu si. alkaati it bu ñu jàppee nit ñi mala. Ah. dëgg la moom. donc foofu moom na kenn ku nekk taxaw fi nga war a taxaw. njaay diw gi lu ci xew baan. Ndiaye daal ay bërigo dawlin la yoo xam ne sawaay. Hmm. Ndiaye déglul lii déglul déglul rek. bërigo yi bërigo diw la yoo xamante ni le mi ngi nekk ci yoonu daaru waaye bërigo yi daa ñuul kukku kukku kukku lii xaw ma xeme la xaw ma diw la waaye guddi gi lañ koy teeyal ba mu teey segg ko bëccëg bi ñu jaay ko ñuy dugg ci dëkk bi di ko jaay bari ko yaa ngi nii man nag maa ko gis mi ngi nii leer nañ waaw man maa ko gis mi ngi nii du luñ montage du lenn loo xamante ni le montage la man maa ko gis mi ngi nii guddi gi lañ koy teeyal ba mu teey bëccëg bi ñu jaay ko fi mu nekk nii nag dañ koy làq nii ku ko wedd xaaral ma filmer la diw gi xoolal xoolal diw gi xoolal ni mel xoolal ni mel xoolal ni diw gi mel xoolal diw gi waaw diw gaa ngi nii lii man maa ko gis kenn ko maa ko gis xaaral ma yëkkati bu la ma jëri la nga xool lii la xoolal mel xoolal dañ koy teyal nii ci naajo tànk yi guddi gi ñu segg ko di ko jaay nit ñi waaw mu ngi nii mu de bërigo yaa ngi nii bërigo ni ngi nii mu ngi nii ci naaju tàng bi lañ ko teg ceg bi léegi ruy ba ruy guddi ñu seeg ko du ci ay bidon di ko jaay waaw lii nag nag ci ndooy baan jot léegi léegi léegi léegi léegi yaatal ko pour nañ nga jot ci lool fii la amee ci Touba yoon Daaru Rahman mi ngi nii dañ ko fii nëbb nii waaw lii moom jërta nëbb jërta làq-làqal lii man boo ma woowee téléphone naa la ko tegtal bañ agsi fi bérigo yi nekk bëccëg bi lañ koy ruyal ba mu ruy ndax dafa dang dafa mel ni genre ni mel daal ëpp na sëñ bi ak nii bérigo yi mel guddi gi ñu seeg ko di jaay diw gaa ngi nii diw diw gi buñ ko seggee nii lay mel buñ seggee diw bi nii lay mel duñ ko xàmmee ak yeneen diw yi diw gi nii lay mel bu boobaa dañ naan la diwu segal la rek xoolal nii lañ koy seggee bëccëg bi di ko jaay diw gi gis nga buñ ko seggee na meloon fii ak ni mel fii buñ ko seggee nii lay mel maa ngi jégg lu baax a baax nag yaatal gi nii boo gisee ñu koy def duñu bëgg ñëpp am jàmm rek am taw tawféex te lii dafa bokk ci wàllu santé yi nit ñi ku gis xeet yu mel nii nga déclaré ko da ciy am solo lool lool yaatal bi nit ñëpp jot am solo mi ngi nii di tudd ko walaal baax na jaajëf. waa bërigo yi mi ngi ci yoonu daaru rahman yoonu daaru rahman Touba yoonu daaru rahman boo jeexalee miir tolloog magasin gerte ba ci ngay jàdd sa càmmooñ boo jàddee sa càmmooñ boo doxee tuuti rek boo xoolee sa càmmooñ da nga seen fi ñu teg bërigo yi mais bërigo yi bëccëg bi la ñuy teg ba diw gi wàcc guddi gi ñu segg diw gi buñ xëyee di ko jaay diw gi nag baaxut dafa way deng deng deng comme saabu mais dara dara dara dara dara dara dara baaxut ci dara buñ ko seggee ak ni diw gi mel ak buñ ko seggagul yépp yittewoo naa ko. gis nga dawlin ci. gis naa ko te nañ ci siiwal nañ ko dugal suñu page. Facebook bi. muy xalaas l'officiel. nit ñi ku ko jot man li yii ni ñoo jaral siiwal. Hmm. loolu lii garaaw na ne yii ñoo jaral siiwal mais moom it bu mu fa yam bu mu yam ci dénoncé ko ci rajo yi. ndërëm gendarmerie. wala police. ah man de. fekkente ne jàpp ñu ñu koy def sax mais liñ jot def moom ñu jàpp ko. Hmm. ah man de commandant ba ma xam yónnee naa ko. waaw mais nañu ko na ko. commandant ba ma xam ca gox booba. voilà képp koo xam ne daal bëgg nga xam diw géeg lu mu diwoo. Hmm. Euh, xool ko ci internet bi xaaral léegi ñu ñu ñu dugal ko ci page xalaas bu bu bu kii bi nu mu tëtti Facebook bi. Hmm. comme ça gars yi mën koo moytu. est-ce que Ndiaye lii garaaw na de. lépp ñàkk la rek ñàkk ñàkk ak ñàkk ab yar rek. lii lii lii nii. Ndiaye lii tax hôpital yi fees Ndiaye. <laughs> lii daa bëri ci dëkk bi. non bul def amal gam nag. ah ku koy lekk lee nga dee de. ma ne ko bul def amal gam nag hôpital yi moom li li koy fees bari li koy feesal bari na. mais lii la diwlin ji lii kuñ ci saafara ay grand foo jëm. lii suñ ko ci toggal bu jën bu xonq cooy bu weex nga yaakaar yaa yaa rey golo ga da ngay xëy suba rek julli julli gee rek faatu. <laughs> ah mais waaw lii ma. ban yow lu tax doo jàmm. déet ja lii mu déet. nit ah. ñee deful jàmm kan ban lu tax doo wax jàmm. déet ku ko lekk yow dëwlin ji njaay lii. Hmm. lii kuñ ci ceebal ab ceeb. Hmm. nga lekk ko jekk-jekk ngay lox fi nga toog pat pat pat. di ko mën a la néew doole mooy dugal nit ñi ci lu nekk. ak ñàkk gëm waaw. gis nga lekk diw goo xamul fu mu jógee. waaw reere soom bi daf ma koo gënal. njaay ñiy contrôler nag njaay mi ci dëkk bi. waaye xam nga lii dañ ko dul gis. yii di fañ koy defee waa fam dox ba teg ci bëtam. waaw xam nga ni service d'hygiène ak contrôleur kii yooyu ñu fa yegg. oui mais population bi gis nañ lii. mais da leen a arrangé. Ah. bi gis nañ lii. ñi koy ñi ko dénoncé wul da leen arrangé. parce que ci lii nii ci la ñu mën a amee diw gu ñu toggee ceebu gan waxuma la ceeb bu ñu dundee ceebu gan. waaw fii la seen doole no non non sa doole ñàkk doole warul tax na ngay lekk loo xam da lay rey